namal ci ñun gëm-gëm te taaral ko ci sunuy xol te bañ ci ñun ak weddi ak caay-caay ak dënge saw yoon ba àdduna dee àdduna ba léegi alxuraan a gën a kéemaane ci lépp lu aw làmmañ mën a wax muy génne ci gémmañ di dugg cib nopp am xel mën koo teewlu kàddu yu ko gën a yéeme nit mësu koo dégg yàlla wàcc ko ci wenn làkk kepp mu war a wax ak ay junniy junniy xeet yu bokkul ay làkk yu bokkul ay gisin yu bokkul ay xalaatin yu bokkul sax ay jamono yu ñu dund ci kaw suuf waaye ndokk ba téere bi ndaree képp léppi xam-xam boo xeet woo ci dem ca ñoom ca njëgu gëm suñu ko dee wax danga naan xanaa téere bi ci ñoom la wàcc ndax mokkal guñ koy mokkal ak dégg guñ koy dégg lu ne mel feeñal na yërmande yàlla ak yombal gi mu def ci téere bi alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashaabi ajmain mbokk yi en tant que njiital regard 114 euh, di laboratoire bi nga xam ni moo samp ci jamono euh, te nag suñuy xalaat ak suñuy gëstu lépp alquran ñulug ko euh, dañoo fas yéene ñëw tey ngir présenter leen lu jiitu ci suñuy mbind ak suñuy œuvre loolu nag donte bare na ci domaine yu ñu gëstu domaine yu ñu bind waaye domaine bi dafa nekk loo xam ne xëj na mooy cosaanu doomu aadama fi doomu aadama tubaab di ko wax embryologie kon nag ñu bind ci muy embryologie et Coran maanaam ëmb ak imbi ci ni ko alquran jàngale ci gëstu yi nga xamante ni dëgg-dëgg sunu borom subhanahu wa taala wax na ko ci diggante yu kéemaane yooyu kon nag nga gis ni baat bi bi ñu koy bind ñun dañ ko kéemale ak baatu wolof bi fusionné ko boole ko nga xam ni embryologie comme dafa jege baatu wolof bi muy ëmb kon au de embryologie ñun bind ñu bind embryologie kon embryologie et Coran moom la ñu fas yéene présenté tey ci ni ñu ko gëstoo ci alquran yàlla dogal na nag ñu bind ko ci làkk wolof mooy làkk bi nga xam ne moom lañ gën a jëfandikoo fii ci sunum réew waaye nag ci araf yi ñu ko bind yàlla dogal na ñun ñoo ko sos waaw araf yooyu euh, ñu ngi ko sos depuis 2013 mu ngi bëgg am fanweeri at te sos gi la ko waral nag du dara dul saa sooy gëstu da ngay gis lu bees di gis ay mbir yoo xam ne xamoo ko woon loolu nag pour nga dugal ko ci làkku jàmbur day jafe maanaam ku ne xam na ni gëstukat yi xam na li may wax li ñuy wax la nomenclature li nga gëstu tamit lu bees il faut nga wutal ko tur dugal ko ci làkk bi kon nag duñ ko def ci làkku jàmbur di ko def ci français wala ci arab moo tax ñu ñëw ci làkk bi da nàmp créer ko li nga xam ne moom mooy alphabet dëgg-dëgg di ci bind boobu ba léegi ñu def ko nag fanweer ak juróom-ñetti dog muy embryologie et fanweer ak juróom-ñetti dagg yooyu ñu ko dagg soo ko dee seet day tolloog fanweer ak juróom-ñetti ayu bis yi nga xam ne doomu aadama dina ko am ci biiru yaayam kon loolu ci ay kéemaan ci alxuraan la ñu fas yéene dikk ak yenn benn par benn. ni mu sosoo ba bawoo koo ci baay yi dagg ci moom beru tey dund ci moom ci lu mu yëgul lu ci moom lu ci baay yi firndeel na man-man bu amul fu mu yam ñeel ki tëral lu ni mel naka noonu nenum nday jàng tege di xaar mel ni dafay feeñalaat maninam ci cof ci aadama cof ci awa ngir delloo si keneen te ku dikk di kenn mosuloo ñëw te dootoo delsi boobu la diggante benn yoon rekk nga ci jaar te yàlla du jaawale mii ndox mu ñàkk solo ci gët moo sos képp ku fi am solo tey waaye cey balaa di pliir mboolem diggante yi muy jaar képp koo bàyyil ku dul sama boroom ak doye dem la bon nag mbokk yi loolu mooy dagg bu njëkk bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee cey balaa mu di liir ndax ku ne xam na ni ndox moomu nga xam ni ndox mu doyadi la te sunu boroom a ko wax doyadi gi mu ne alam naxluqkum min ma in mahinin ah, balaa mu dib liir dana jaar ci étape yu am solo yu baree bari dale ko nag ci bi muy nekk ci baayam nga xam ni du tëb tëb rek doon spermatozoïde waaw nga xam ni étape yu bari la dale ko ci spermatogonie spermatide euh, spermatocyte ba ci spermatozoïde hmm? euh, nga xam ni moom la alxuraan di wax atwaara maanaam ay waqad xalaqakum atwaara mu nekk ay ay ay étape nga xam diggante bu ci ne rek doomu aadama bi mënu ci woon a ñàkk jaar ngir nekk nit loolu moom lañ tuddee ci gëstu yi diiru dundal yi ndax li tax ñu tuddee ko diiru dundal bi mooy euh, xëj na bi mu ñëwee ba sotti am na ci loo xam ne ci dundam moo ko yor mooy dem fàggu ji ko di dundal boppam waaye fii nag sunu borom moo koy dundal euh, moo ne dund la goo xam ne mu ngi ko doon dund ku nekk ci ñun jaar na fa waaye euh, mënuloo ci fàttaliku dara Euh, ndax booba da nekkul dund waaye ab dundal la dañ la doon dundal lépp loo xamante ni température la walla euh, lu mu laaj ci wàllu nekkin wàllu euh, entretenir lépp borom bi subhaanahu wa moo ko doon amal ci étape yooyu kon loolu mooy li jiitu beneen bi ci des mooy doomu aadama nga jànge foofu kon ni ci baayam lay njëkk a juddoo dana jëkk dina judd juddu gu njëkk mooy jamono bi nga xamee ni ci lay toxoo génn ci baayam war a dem ci ci ci euh, waajuram euh, wu jigéen euh, nga xam ne lépp lépp rek borom bi subhaanahu wa bàyyiwul ba léegi ndax am na leneen lu ñu tuddee itam barab bi dundali ndax lenn lu nekk bu demee ba toll fo fa mu war a toll day jóge ci benn barab dem ci beneen barab nga xam ni di ko dalee ci type séminifère yi dem ci canal déférent bi ba ci vésicule séminal bi ñëw ci utérus beeg yooyu yëpp ay barab la fa ja'alnaahu fi qaraarin makinin kon loolu euh, dëgg-dëgg euh, mooy barab bi euh, dundal yi ci li nga xam ni moom mooy xaaj bu njëkk bi nga xam ni moom lañu tuddee ci balaa di bilir kon nag nga gis ko mu ngi nii ci écran bi ñu bind ko mu nekk ci comme ni ko waxee rek fàttaliwaat ko ci araf yi nga xam ne xëj na ñun ñoo ko sos mu nekk ci làkk wolof dëgg-dëgg euh, incha nii leen ko bëgg a toppee ba fanweer ak juróom-ñetti dagg yi euh, mat ci ni nga xamee ni moom la doomu aadama di nekkee ci biiru euh, ndeyam ca biir biir butit ga ci la ndox maag nen bay daje ngir doon benn mu nekk ci biirub lëndëm te du tax yàlla laj ci ga loolooy firndeel gisam bu leer ci biirub lëndëm su ndox maag nen ba dajee ba bokk doon benn mënees na ko tuddee nit ci yooyu jamono ngir ne dana tàmbalee soppiku soppiku bu jékki dayo boobu la soppiku su ko dara dogul ci doonub liir la jëm waaye cëy balaa mu di ndeyam doomu aadama ndeyam dina ko ëmb ba mu def ayu bis te du ko dundal tooy tooyu biir butit gi ak li nen bi yàbbi moom lay dundee ci ñaareelu ayu bis bi ci lay soog a sax ci ndeyam mu di ko sédd deret ak tooy-tooy yi nen bi yàbbi mooy waral ndey ji dootul gis baax waaye tooy-tooy yi nen bi yàbbi mooy waral beneen ëmb du tegu ci kaw ëmb bi fileeg bii la ëmb jeexul. ah bokk yi comme euh, ni ko gisee kon ñaareelu dagg bi moo nekk noonu nga xam ni moom lañu tuddee cëy balaa mu di ndeyam ndax euh, li ngay jàngate fii su fekkente ni dégg nga euh, ay borom bi subxanahu wa taala xam ni nit bàyyi la njëkk am sooga am. ndey nit ki bàyyi lay njëkk am soog a am ndey ndax bu ñaar ñi àndee amul dara luy tukkee ci wajur wu jigéen wi ñëw ci ah, baay waaye baay ji rek mooy am lu muy toxal mu jóge ci moom dem ci ah, ndey ji mu mel ni maninu sunu borom day dellusi si saa su ne ci kenn ku ci nekk dafa mel ni dafa cof ci aadama cof ci awa ngir dajale bind la kon dafa am lu jóge ci baay ji am nen bu bawoo ko ci yaay ji kon nag euh, dëgg-dëgg euh, mu mel ni maninam day dellu si saa su nekk ba tax na booy dégg borom bi subhaanahu wa taala dana ne yaa bani aadama bokk na ci ni muy woowee nit ñi dafa dafa dafa mel ni aadama moo fi nekk rek ba léegi moo jur ñépp kon ay xeet ak ay waasoog yooyu yépp amul yaa bani aadama rek ngay dégg borom bi wax ko bu ko defee euh, ci biir loolu mu mel ni étape la boo xam ne doomu aadama bi mu fiy toll yëgu ko waaye itam lu bari ci euh, lu baree bari ci étape yooyu ndey ji yëgu ko baay ji yëgu ko kon mu nekk inconscience boo xam ni wane na xereñu xereñu borom bi subhaanahu wa taala waaye ba tey euh, ci biir loolu nga gis ni kon euh, doomu aadama nit mën na la mën na nekk sa ndey sax te du te du la jur ndax loolu yépp yàlla mi bind alquran xam Euh, xam ko xam doomu dama xam jamono yépp li ciy xew ñu dem ba nga xam ni tey jii euh, bari na lool muy accouchement césarienne yi nga xam ne nit ki dina ñëw ci àdduna waaye du judd comme ni nit war a jaare dañuy xotti biir ba génne ko gis nga ko kon bu ñu dee yaatal aaya bi yàlla naan in ummahatum illa llaahi waladnahum mooy loolu tekkiwul njuréel gi sax donte ci beneen firin Euh, mën nañ jàpp ni lu juddoo ci dara mooy lu génne ci dara waaye ci gàttal daal mooy doomu adama ndeyam moo ko def muy nit ndax euh, bi mu jógee ci baay ji ñëw booloo ak nen boobu nekk benn dëgg-dëgg ndey ji moom mooy ki nga xam ni moo ko nàmpal ci deret moo ko nàmpal ci ci suux moo ko nàmpal ci mbooleem loo xam ne ay nutriments la ba mu mën a jël forme doomu adama kon bàyyi ja la mu indi mooy ndox ma rek mais leneen lu ca mën a am ci biir biiru yaay ji yaay jee ko nàmpal ci deretam ba jëmmi doomu adama jooju mën a formé wu kon loolu moo indi aaya boobu in ummahatum illallah i waladnahum moom moo la def ngay xale moom moo la jox jëmmi nit ji ci moom la ko yàlla jaarale wax gi yàlla wax ni xam na diir bi ëpp ci ëmb bi mbaa li ci néew wane na ni mbir moomu yamale la ci ab àpp lu ca tege day ëpp lu ci yées day jëkk kon waxtu yaak lim ya boole matal diir ba lu ko amal solo la ni aw jiw di soxe ci suuf ami reen tàmbalee génne ay car ak i xob noonee ci diiru weer wu mu am ci biiru yaayam doñ ji suux gi dana tàmbalee génne ay cër ci ñaareelu weer bi mboolem cër yu nit di am da koy tàmbalee feeñal ba mu des way yàlla yi moo yay tudde boppam aji melale ji ngir ni la doon dim ndox akub nen mujj na jël melokaanu nit te moo ne day ubbeeguñu sax bunti kéemaan yi ci jële ko ci 1 ba ci 1 mètre 80 ci xarañteefam ak kattanam gu màgg gi kon nag mbokk yi troisième étape bi mooy troisième dagg bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Euh, waxtu ya ak lim ya booloo matal diir ba lu ko amal solo la waaw dëgg-dëgg lu ko matal lu ko amal solo la te lu jara gëstu la ndax borom bi subhaanahu wa dafa bëgg ay waxtu bëgg lii def naa ko waaye ci nangami waxtu laa ko def ci nangami bis laa ko def ci nangami weer laa ko def loolu saa su ne day dellu siwaat ba ci ni mu bindee asamaan su dangay gis mu ni fii sittati ay yaamin ci juróom benn fan laa ko euh, euh, mm, def waaw kon nag euh, am na feneen fu mu ne inna iddata shuhuri inda allahi isna asara shahran fii kitaabin yawma xalaqa samawati wal ard kon li nga xam ne mbooleem loo xam ne datation la yàlla dafa yitteel yàlla kon nag dëgg-dëgg wax gi mu wax ci aaya bi da cee boole ñetti xam-xam allahu ya'lamu ma taxmilu kullu untha wa ma taxiidul arxaamu wa ma tazdaadu borom bi subhaanahu dafa boole ñetti xam-xam te ñetti xam-xam yooyu dafa nekk ay xam-xam yoo xam ni xam-xamu précision la mooy bët lu ci njëkk nga xam li mu ëmb waaw kon mel na ni règle bi génn na ci nu mu gën a yaatoo ni góor du ëmb kon allahu ya'lamu ma tahmilu kulla unsa jigéen gis nga ko xam li mu ëmb d'abord xam itam lan moo wees ci diir bi nga xamante ne moom mooy diiru ëmb bi xam itam lan moo ca yées lan moo ca wàññeeku kon muy ñetti xam-xam yoo xam ni xam-xamu précision la beneen bi ñuy dikkaat ci ñetteelu dagg bi ba tey mooy gis nañu ni euh, doomu aadama lii mujjee formé wu ci moom mooy way yàlla yi mooy mooy sàkkara bu dee góor bu dee jigéen kanamam dëgg-dëgg loolu dafa nekk sutura boo xam ni boo delloo ci alxuraan soo demee ci suratul araf di nga gis ni ba ci aadama bi muy génn ci àjjana bokk na ci lan doon daw di ko nëbb mooy rek dagg ay xob wa tafixaa yax sifaani alayhima min waraqil janna taf ko seen kanam ngir mu bañ a feeñ loolu dafa nekk loo xam ni ba ci biiru yaayam daf koy topp mu nekk lu xóot a xóot xëj na dañ ci ñëw ci yeneen vidéo dëgg-dëgg fi ñuy daanale ci ñetteelu dog bi mooy almu sawiru ji nga xam ne yàlla tuddee na ko boppam nga xam ni mooy aji melal ji yu sawirukum fil arxaami kayfa yasha loolu soo demee ci ñaareelu weeru bi nga xam ni ci la ñu ëmb doomu aadama dafa am beneen étape bu muy dugg après segmentation bi cavitation bi gastrulation bi ak li nga xam ne mooy délimitation bi dafay dugg nag ci li ñuy wax organo organogenèse ak li ñuy wax morphogenèse nga xam ni dafay modeler yàlla dafay modeler tous les aspects extérieurs yi nga xamante ni daf ko dafa aajowoo ci doomu adama bi kon loolu mooy almusawiru ah, dëgg-dëgg di tur boo xam ne tur bu màgg la ci turu yàlla yi diir bi mu am ci biiru yaayam soo seetee diggante yi mu jaar ak xereñe gi am ba mu taxaw nga ni binduñu ko woon ngir mu mujj naax saay ci suuf si noonu moo ndax sax lu mën koo dekkal a tax mu faat ko kon ñi weddi dekki ak ñi koy sikki sàkka fii la leen yàlla delloo doon ci suuf gi la xaaj ñetti wàll wàll wi ci la bind der bi ak suuf gi ak mboolem jumtuwaayu xel mi wàll wi ci la bind xëtër gi ak mboolem buumu noyukaay gi ngelaw gi jaar wàll wi ci la bind yax sidit ak mboolem yoon wi deret ji jaar ak bunti mboolem lu yaram wi soxlawul mën koo génne ngir yeesaat kon mu mel ni doomu aadama day dee saa su nekk dekkiwaat ngir yeesaat. Ah, bon nag mbokk yi loolu mooy ñeenteelu ah, dagg bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee moo ndax sax du mën koo dekkal a tax mu faat ko ah, ndax. doomu aadama fi mu jaar depuis bi mu nekkee ci biiru yaayam diir yi nga xam ne am na ko fa ci étape yi mu jaar ah, nekkul woon ni rek dañ ko bind ngir rek mu dee noonu naax saay ci suuf si noonu ah, kon ah, ñi nga xam ne weddi nañu dee yaakaar ni da ngay jaar ci étape yi nga xam ne ni mu amalee solo yàlla mu nekk ay étape yu xereñe nga dund ci kaw suuf def li la neex dund dee noonu seey noonu ah mu jeex te def demewul noonu dafa am juróomi summa yoo xamee ni euh, alquran da ko indi ci suratul muminin nga xam ne yàlla mu mu ngi commencé summa jaalnaahu fatan fi qaraari makin di dem di dem di dem ba summa innakum de zalika la mayitun mooy quatrième bi cinquième bi ñëw ni summa innakum yowmal qiyaamati tubaasun gis nga ko kon mu mel ni nit ki nekk bi mu nekkoon ci biiru yaayam di jaar ci étape yooyu dëgg-dëgg xereñ la bu bawoo ko ci yàlla waaye ay réponse la tam yoo xam ni yàlla da koy répondre doomu adama lu jiitu muy posé wu question yii may bëgg a wax nga xam ni alxuraan moo ñuy indilaat question yi lu ci mel ni euh, euh, euh, aiza mitna wa kunna turaba ndax bu ñu dee ba doon suuf danañu dekkiwaat wala aiza dalal naa fil ardi yooyu yëpp ay ay ay mbir la yoo xamante ni dafay dellusiwaat ci xelu doomu adama bi mu di ko posé wu ndax bu demee ba doon ay suuf danañ dekkiwaat kon loolu mu mel ni yàlla borom bi subhaanahu wa da koo waaj ba ñi nga xam ni am nañu sikki sàkka ci loolu mu delloo leen loolu boo demee ci suratu xaj yi yaa ayuha nnaas in kuntum fi raybin min al baasi fa na inna xalaqnaakum min turabin summa min nutfatin gis nga ko kon nag dëgg-dëgg ci biir biiru yaay ji nga xam ni li ñuy wax la multiplication cellulaire ak la différenciation ànd ak kun gi yaa nga xam ni moom la yàlla melokaano nga xam ni innama amru ida arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun foofu type de cellule souche yi nga xam ni tey ji xam nañ ko muy cellule totipotente yi nga xam ni mën nañoo doon lu leen neex ndigal yàlla rek lañuy xaar su leen nee doonal we ñu doon we benn ñummu nga woon yàlla moo naan na lii doon we na di doon loxo na di doon tànk na lii doon bopp na lii doon nopp kon muy cellule totipotente am cellule unipotente nga xam ne lenn la mën a doon am cellule multipotente am cellule pluripotente yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni yàlla nga ko dëxañ ci donji suux googu nga xam ne tey jii moom la ndaw si ëmb kon nag mu nekk loo xam ne dafay wane ay kéemaanam saa su nekk nii rek lañ koy bëgg di amalee di ko yaatal ci mbind mi nga xam ne bind nañ ko mu nekk nii nga xam ne ñu ngi ko tuddee embryologie et Coran